final final point laissé esaan Siny moo fi final woon keroog mook Njool la Joola Njool daan ko tey mu daan Njool demi final waaye moo final ak Babacar Tine Siny Bargny Babacar Tine final poids léger Siny Bargny daan su ma nee Siny Bargny sama xel dem si boobu Siny Bargny mbar Siny Bargny Babacar Tine Bakar Tine Siny Bargny final poids léger Babacar Tine Siny Bargny ey waay Babacar Babacar daan na ko waaw Babacar Tine daan na Siny Bargny Siny ñàkk na ñaari final Siny ñàkk na keroog 5 millions final tey mu ñàkk 6 millions final moom Siny Bargny oh Siny Bargny si suno Babacar Tine vainqueur de Siny oh ñu jëm nag final poids lourd diggante ab Bisale Kungkung fa an bu Joof